police alimentation bi puissance borom tonton Ousmane dama la bëgg rek teel rek tax nu may def ba gis la benn nit bu la bëgg jar naa dew ba dégg ngi ñi la bañ soo ma bëgg-bëgg maa la gën a bëgg di ma gis maa ngi abonné sa page dana recevoir ñu ngi seen tey yal na yàlla fay merci. yes man le golden boy de la musique sénégalaise. yes moo petit-fils mon frère mon ami. Wally Balago donc le tout corps avec vous mon frère. fonce le 12 ça se prépare. day neex day fees. tu as l'habitude assuré guerrier nga am nga public nit ñi fonk nañ la baax nga soxol rafet na soxol ji la la yàlla di fay. tu le meilleur. mën naa la ko wax tu le maire yaa ngi foncé jamal ah, le 12 na ko ñëpp waajal na ko ñëpp waajal ak waa mouvement yi MJK yi na ñëpp jugee mbabbeekoo Kaolack ñëw assister suñu frère suñu cousin suñu jarbaat suñu sët Wally Ballago Seck lu waay mënul sa waay da ko amul vive Wally sek vive le 12 ça se prépare gars yi dem xappi rek ku mer bokk